nee na ko am xaritu Baye Fall moo gën a wóor ñàkk ko te am na ñoo xam ne xaritu Baye Fall rek lañu ñu bañ fexe nañ ba amuñu ndax loolu dafa am lu muy jariñ nit xaritu Baye Fall rek daa am lu muy jariñ nit ndax